bokk mi day laaj mu ne lan mooy àttab jigéen joo xam ne dafa sangiwu ba noppi njaaloo ak góor goo xam ne moom sangiwut nee na góor googu nag da koo bëgg a takk ginnaaw bu ko borom kër ba wàcce sangewu mooy masa masa sëy rek masa sëy sëy bu wér boo xam ne ak jote am na ci góor gi ko masa def dañ naan sangewoona jigéen ci ko masa def dañ naan sangewoona mu ne kon jigéen ju sangewu njaaloo góor gu sangewuwul mooy góor gu musta sëy moom jigéen ju mës a sëy njaaloo góor gu musta sëy kon daa mel ne jigéen ji boobu sax mi ngi sëy boroom këram wàcc ko ginnaaw bi góor gi ndax ndax dagan na mu takk ko kim njaalool dagan na kay dagan na moo xam ku nekk cib sëy la woon moo xam ne ko doon cib sëy euh, loolu xew seen diggante bu xewee ba nopp bala ci war a topp topp ci ba noppi euh, mën nañ leen a mayewaat mën nañoo sëy moo xam kee da doon sëy ñu bàyyi ko mu jàpp iddaam ba mu jeex moo xam sëyutoon waaye laab na itam ba mu jeex boobaa danañ leen mën a maye ñoom ñaar suñu cheikh kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci góor mu bañ a julli ji ajjuma ngir na moom day liggéey ci barab boo xam ne ne magasin la boo xam ne marchandise day nekk ci bitti ñuy awantoo bu kii gardé tey ëllëg keneen gardé ngir xam nañu bu ñu demee bàyyi ko noonu ñu ab sàcc mën na faa jaar jël ko mu ne ndax loolu aw lay lay doon. loolu nag du du du ngànt luy maye bañ a julli ji ajjuma du ngànt luy maye bañ a julli ji ajjuma. li muy def marchandise mi bu guddi jotee moom la koy def ndax guddi dafay fanaan moom ci boppam ginnaaw dafa fanaan moom ci boppam bu guddee pexe ma muy def ba duñ ko sàkkal pexe bu guddee diggante bi muy julli jee di ñëw rek pexe moomu lay def kon ne damay toog di sàmm sama marchandise loolu du ngant luy maye bañ a julli ji du ngànt luy maye bañ a julli ci te sàmm ko ba bëccëg moo gën a yomb sàmm ko guddi kon marchandise mi muy wax war naa fexe ba dugal ko fu ñu ko war a dugal fa nga xam ne ba guddee mu dugal ko fa kon diggante bi muy jullijee bay ñëwit na ko fa dugal mu jullijee ba noppi jëlaat ubbiwaat tegaat ko fam ko tegoon waaye du wax ne rek marchandise laa fi moo fi nekk moo xam dama koy sàmm moo tax duma julli ji dañuy awante bu biyee kii julli ji kii sàmm ko bu benee kenn ki julli jiwutoon julli ji ki toogoon euh, ki ki julli ji woon toog déedéet déedéet loolu du loolu du loolu du du ngànt luy may bañ julli ji incha allah euh, kii day laaj mu ne koo xam ne dafa bokk ci natt boo xam ne fukki weer ak ñeent lay doon mu ne ndax kon bu teggee loolee mu teggee asaka dana ci war xam nga natt moom li mu nit ki li mu teggi li mu teggi bu fekkee dafa teggi ba noppi li mu teggi am na ci lool bu fekkee matagut am na ci lool bor la bor la bu mu ameel ñi teggeegut bu teggeegut itam lim jot a teg bor la buñ ko ameel asaka nag ñaari xeeti bor yëpp dafa am nuñ ciy doxe bu dee bor ñu la ameel la mooy kon yow yaa doon teg te teggeegoo ci diggante bi waxtu asaka jot nga xool gis ne li nga am ci xaalis asaka war na ci booba da nga cee boole la nga jotoon a teg da koy limaale ci xaalis bi nga am da ko ciy limaale muy bor la kon ñu la ameel da ko ciy limaale boo ko ci limaale nag bay génne bu la neexee nga génneel lépp bu la neexee bor bi nga jotagul nga bañ koo génneel ba jot ci door koo génneel loolu mooy ki doon teg te teggeegul bu dee nag ci teg gi te teg bi matagul mooy am na ñaari teg bor la bu mu ameel wasaabihi fi lhaali wal maali وابني الشكر وابني علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليات منك بقاء صافيا du ko limaale ci alalam bu fekkee bu ko ca limaale wut alalam du mat lu asaka di war kon asaka waru ko bu ca dee war nag mu génne ko ci loola ci li nga xam ne bor ba bokku ci kon ñaari anam yëpp lu ci ne am na doxee nuñ ca war a doxee sëriñ Cheikh euh, mbokk mi day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne tuur ndox da ko yàpp nga xam ne léeg-léeg du ko mën a téye waaw loolu da xeetu wéradi la xeetu wéradi koo xam ne Euh, gaanuwaayam day génn ci lu dul coobareem day génn ci lu dul coobareem mënu koo téye loolu ak wéradi la wéradi googu nag man naa am ci gaanuwaay mën naa am ci leneen lu yàq njàpp yeneen yu yàq njàpp itam loola mën na caa am am na koo xam ne wéradi gi ci gaanuwaay la jëm am na koo xam ne ci ngelawal la jëm am na koo xam ne ci leneen la jëm ci lu ne la mën a jëm ci ñàq-ñàq yi yàq njàpp waaw lu mu ci mën di aju rek lañ koy digal rek mooy saabu julli jotee na jàpp na jàpp bu xasee jàpp nag ba ba muy noppi ca julli ga dara du yàqati njàppam moomu ba ba muy julli ba noppi dara du yàq njàppam moom lu mu mën di def itam du tax ñu def loo ko leneen na na jàpp daal waxtu julli wu na jàpp bu julli jegee bu buy bëgg a julli na dem jàpp ñëw julli diggante boobu lu fi man di xew itam du ko yàqal dara lu man di génn ci moom ci diggante boobu itam du ko yàqal dara kon loolu lañuy wax ki nga xam ne dafa am wéradi ci wàllu gaanuwaay ba muy génn ci anam goog mënu koo téye waaye noonu lay mën a amee itam ci yeneen yi yàq njàpp fu ci man di amee itam loolu rek lay def saa bu julli jotee daal buy bëgg julli na dem jàpp bu xasee jàpp nag ba ba muy julli ba noppi lu fi man di xew itam du yàq am jàppam lu mën di xew ci wàll googa ci wàll ga nga xam ne ci la amee ak wéradi mhm. jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax alal ju araam buñ ci takkee ab sëy sëy ba dana wér alal ju araam buñ ci takkee ab sëy ndax sëy ba dana wér alal ju uh, lewut bu dee lu lewut lañ jublu ndax ñaar yooyu yemuñ araam ak uh, ñàkk a lew bu dee lu araam moom duñ ci def lenn lu araam mooy lu mel ni uh, alal lu mel ni sàngara sàngara alal la waaye alal ju araam la alal la ca ca ca ca ca ñeneen ab julli sax sàngara du ara du alal ci moom dañ naan lu araam du nekk alali jullit jullit mënu koo moom ndax alal mooy lu ñuy moom te lu araam jullit mënu koo moom waaye bu dee lu lewut la nag mooy jëmm ja dagan na waaye ni mu ko amee moo dëppwut ak yoon kon lewut loola moom bu ca joxe woon can ndax takkub sëy joxe can lañ ciy jublu ndax sëy can rek moo ciy farata ci lu ñuy defe ci alal can rek moo ci farat kon bu ñu naan takkub sëy joxe can lañ ci war a jublu kon lu daganut lu lewut ku ci joxe ak can sëy ba dana wér sëy ba dana wér bu ci joxee ak can sëy ba dana wér ñàkk dagan gi mbirum boppam la moom mbirum boppam la digganteem ak yàlla ak digganteem ak bu fekkee day àppi jàmbur jum jël digganteem ak jàmbur boobee waaye nag ñam seqal ñeneen ñoom lam leen cay jox lañ ca seq dana ca wér kon bu deelu lewut la dana wér bu deelu daganut la nag du wér lu mel ne sàngara ab jullit mënu koo joxe cam ndax dafa daganut suñu seex kii day laaj mu ne ndax azaka dana war ci marchandise yi nga xam ne dañ koy gaaral noonu rek ngir di ko luye ak yu demee noonu waaw ah, luye lu ñuy luye lu mel ne ku tabax kër di ko luye walla ku jënd yi oto di ko luye kon lu mat doon rek lu ñuy luye lu ne jëmmi la ñuy luye asaka du ca génn asaka du ca génn lu ñuy luyee asaka du ca génn mooy jumtukaayu liggéey rek jumtukaayu liggéey bu mu mën di doon asaka du ca génn waaye la la juddoo ca liggéey ba ca la asaka di génn kon mooy kiy luye kër yi asaka du ca génn du ca génne asaka bu dee ay fas lay luye du ca génne asaka bu dee ot ay oto lay luye oto yi du ca génne asaka waaye nag lay jóge ca location ba mooy lañ ko cay faye xaalis ba kon ca lay génne asaka asakay xaalis lay génne muy lañ koy jox ci lim luwe lay booleeg beneen xaalis bu bi mu am bu mu amee feneen bu ko boolee bu ma teelu asaka war mu génn ci asaka waaye jëmmi la muy luwe moom du ca génne asaka ndax jumtukaayu liggéey la te jumtukaayu liggéey kenn du ci génne asaka suñu cher kii day laaj mu ne lan mooy àttab jigéen joo xam ne ñaari góor ñoo koy labat te moom xam na ne ñaari góor a ngi wax ci moom mu ne waaye ñaari góor yi koy labat moom kenn ki xamul ne am na koy wax ci soxna si yëgante ñaari góor yu daje di labat jenn jigéen te yëgante jigéen ji nag moom ne cell warut ne cell warut ne cell labat mooy lan labat mooy góor gu won jigéen walla kilifa jigéen yéene jum am ci takk ko yéene jum am ci takk ko loolu mooy labat bu fekkee jigéen ñi ngi koy labat bu fekkee yëg na ko moom mën naa am koy labat koo xam ne ak siwu ci jigéen ji waaye ci kilifaam la yem waaye jigéen ji daal bu yëgee ne am na ku koy labat bu keneen ñëwee bëgg koo labat waru koo déglu da ko war a xamal ne am na am na ku fiy wax am na ku fiy wax wax joojee bu sotte bañ juboo ñu wéyal ko bu ñaan jotee ñu ñaan si ñu may leen bu fekkee nag juboo amu ca kookas door a sañ a ñëw door a ñëw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere loolu dafa tere nit di labat keneen ñëwaat di labat ki muy labat da ko tere bu fekkee ñoom yëgoowuñ nag jigéen ji ko xam moo ko wata nangu moom mi xam ne am na ku ko njëkk di labat bu keneen ñëwee waru koo déglu da ko war a xamal ne am na ku fi nekk wala am na ku fi wax bu wax ji sottee baax na bu wax ji sottiwut nag buñ buñ déggoowut kooka door a sañu ñëw suñu Cheikh jigéen ji nag boobu bu bu ca waxut dara xanaa mel ne ku leen di déglu ñoom ñaar ñëpp boobaa la muy def baaxut la muy def baaxut ndax la muy def dañ koo tere bu doon góor ñee ko def dañ leen koo tere kon moom mi tax ñu def ko la muy def lu ñu tere la ba tey muy nit di labat keneen di labat ci kawam loolu yonent bi da ko tere sallallahu alayhi wa sallam suñu Cheikh kii moom day laaj mu ne ndax dagan na jullit bu faatu bañ denc ko ñu sulli ko yóbbu ko ci beneen dëkk ngir dencaat ko foofu euh, jullit bu faatu ba ñu denc ko ndax dana dagan ñu di ko génne di ko yóbbu feneen mën naa dagante waaye ci ci lu munta ñàkk lool lay doon lu mel ne bu fekkoon ne fi ñu ko denc buñ ko fa bàyyee day xotti war maam day day jur day da koy jural xotti war maam lu mel ne bu doon béréb la bopp dañoo xam ne buñ ko fi bàyyee ndegment yi mooy rab yi dana ñëw sulli ko yàq ko te mën nañ ko yóbbu feneen foo xam ne loola du ca am bu boobaa lu mel noonu mën naa tax mu sañ ko fa jële yóbbu ko feneen ngir sàmm war maam la kon bu dee daal ngir sàmm war maam la loolu rek mooy jar lu mel noonu ngir sàmm war maam ak yeneen nag yoo xam ne yeneen mbir la lu mel ne loo xam ne ci wàllu euh, yoon la lu mel ne nit ku ñu reyoon ba denc ko te fekk yoon a ngi gëstu ngir jéem a xam ku ko rey te mën nañoo sukkandiku ci euh, xool guñ koy xool ba mën a am ay yoon yu ñu mën a jaar ba mën a àgg ci ku ko rey kooku buñ gaawatoon ba denc ko it mën nañ koo génnewaat ngir la ca yoon bëgg a def man ko caa def waaye bu dee nag ngir jële ko ci béréb yóbbu ko ci béréb rek lii tax mu mën a dagan mooy béréb bi mu nekk buñ ko fi bàyyee war maam dafay xotti ko te buñ ko yóbbu ci beneen béréb nag beneen bërëb euh, su war maam man faa sàmmoo loolu daal mooy tax ñu mën a euh, génne nit kuñ denc ba noppi di ko yóbbu ci beneen béréb sëñ Cheikh. Mm-hmm. jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy miraasu koo xam ne dafa faatu bàyyi fi soxnaam ak jigéen ju mbokkal ndey ak baay ak doom ju jigéen ak góor gu mbokkal baay laaj bu ca topp mu ne ban barab mooy barab bi nga xam ne jigéen du fa am cër waaye day xaar rekk lu des mu jël bu fekkee dara disul mu ñàkk waaw bu dee nii la demee day bu dee ñi ñi ñi war ñi mën a doon ñépp ñi fi nekk ñi mu tudd fii ñoo fi nekk ci ñi mën a doon muy soxnaam ak jigéen ju mbokkal ndey ak baay ak doomam ju jigéen ak góor gu mbokkal baay bu dee ñii la fi bàyyi ci ñu mën a doon kon ni muy demee mooy soxna si day am benn benn juróom-ñetteel mooy buñ ko xaajee buñ xaajee li mu fi bàyyi juróom-ñetti xaaj yu tolloo benn xaaj ba la soxna si di am doom ji dañuy xaaj liñ fi bàyyi jox ko xaaj bi doom ji xaaj bi lay am doom ju jigéen ji jigéen ji mbokkal ndey ak baay mooy jël li ci des góor gi mbokkal baay rekk du am du am jigéen ji mbokkal ndey ak baay moo ko tey am moo ko tey am ndax day jël li ci des boo ko defee góor gi bokkal baay rekk du am lu mu jëlati bu fekkee nag fan la jigéen di amee aw des nga xam ne day jël li des wala day bokk ak keneen li des loolu du du benn béréb rek ay béréb yu bari la fii ñu waxe rek bokk na ci lii ñu wax nii rek loolu ci la ndax rek euh, doom lu doon ku mbokkal ndey ak baay la tamit jigéen foofu aw des la jël waxuñ ne cër sàngam la am waaye aw des lay am bu fi dajee ak doom ju jigéen wala sët yu jigéen wala sët bu jigéen booba aw des lay am fii nii moom la am ak nag ñeneen lu mel ne doom ju jigéen bu nekkandoo ak doom ju góor ba tey doom jigéen ji du am cër waaye day bokk doom ju góor ji aw des sët bu jigéen bu fi nekkandoo ak bu góor itam sët bu jigéen bi du am cër waaye day bokk ak sët góor bi aw des euh, mag walla rak ju jigéen bu fi nekkandoo ak mag wala rakk ju góor it teñ bokk luñ doon moo ñoom ñëpp dañoo bokk ak moom ndey ak baay wala ñoom ñëpp ñu bokk ak moom baay rek kon ba teyit it e, mag ja mag wala rakk jay jigéen du am cër waaye day bokk ak mag wala rakk ju góor ja da ca des dañ koy bokk kon béréb yu bari la jigéen di ñàkk amee cër buñ ne cër moo ñu ne nangam lay am mi xaaj ci alal ji lay am duñ wax loolu waaye dañ naan la des lay jël wala la des lay bokk ak diw sàngam wala diw sàngam ñoom loolu kon ci béréb yu bari la sëñ sëñ Cheikh. kii moom day laaj mu ne laaya ji la bëgg ñu wax ko lu muy tekki fii sunu boroom di wax ne fa lamma qadayna alayhi almawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatu al taakulu min saata loolu de mooy njëlbeenu laayay fukk ak ñeent ci saaru saba falamma qadayna alayhi almawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatu l ardi taakulu min saata falamma xarra tabayyanat aljinnu an law kaanu yaclamuuna alxayba ma labisuu fi lcadaabi almuhiin foofu yàlla dafa wone ne junne yi rekk xamuñ lu nëbb junne yi xamuñ lu nëbb ndax yàlla da leen a tàggataloon seydna suleymaan mu leen di sant ay liggéey yu metti te duñ sañ a bañ ñu nekk ca noona ba Seydina Suleymaan wàcc ab liggéey te taxul ñu xam ci dara ñu wéy ci liggéey bu metti bañ nekkoon rek lu yàgg am na ñu ne wéy nañ ca lu mat at waaye loolu xëy na bu naqaree dégg itam dañ naan daal wéy nañ ca ab diir bu yàgg boo xam ne wéy nañ ca liggéey bu metti bañ nekkoon ndax jàppu ne Suleymaan mi ñu ngi dund ñu ngi koy gis te génn àddina te xamuñ ko dañoo dem ba sukkóotu ba mu doon yor muy bant bi mu doon yor di ko sukkóotoo moom la dem ba ak max ak max lekk ko ba bant ba yàqu ci la na Suleymaan daanoo ñu door a xam ne génn àddina yàlla wax ci ne ca loolu la jinne yu xam ne bu fekkoon ne ñu xam lu nëbbu la lu nëbbu lañ kon dañ xam ne Suleymaan mi génn àddina te kon duñ fa desaat di liggéey liggéey metti boobu ci ñoom ndax liggéey ba neexu leen woon dañ ca dañ ko sañu doon bañ rek buñ buñ doon xam lu nëbbu kon danañ xam ne Suleymaan mi génn àddina te kon duñ fa des di liggéey liggéey bu metti boobu fa lamma xarra mooy bi Seydina Suleymaan daanoo tabayyanatil jinnu an law kaanu yaalamuuna al-ghayba maa labisu fil azaabil muhiin kon yàlla dafa wax ne bi naa Suleymaan wàcceeb liggéey jinne yi li leen ko xamal ne wàcc na liggéey mooy rek bañ bañ demee ba bant bi bi mu doon sukkootoo ak max lekk ko ba bant bi damm su Seydina Suleymaan daanu ci lañ doo a xamee ne génn àddina mu ci war ne kon xamuñ lu nëbbu loolu la ci bëgg a saxal war ne jinne yi ñoo yéen a yam rek ñoo leen tane tuuti xëy na léeg-léeg waaye ñoo ngi yéen nit ñi a yem rek bu ñu leen bu ñu leen jaay yenn yi ba ngeen jàppane xam nañ lépp wala mën nañ lépp. Hmm. jërëjëf Serigne naa kii day laaj mu ne lan mooy atteb tuxal xibaar boo xam ne nii wérut yóbbu ko ci ñeneen ak ndax xibaar boobu wérut te nga tasaare ko bu ci kenn loroo yow dañ ci am bakkaar yow mi ko tasaare. xabaar bu wérut moom. ku xam ne wérut xam ne wérut ba noppi tuxal ko te tuxal ko tux tuxaliinu ku ko jàppe lu wér mm-hmm. loolu moom dañ koy tere day araam ndax waxul wax lu dul dëgg la rek wax lu dul dëgg la rek koo xam ne jot na xabaar bu wérut mu xam ne wérut mu jottali ko te bi mu koy jottali da ko jottalee da ko jottalee ne lu wér la kon daa wax lu amut da dafa wax lu amut bu fekkee xam na ko kon luñ tere la ku xam ne ab xibaar wérut ba noppi mu jottali ko te jottali ga mu jottalee ko jottali yi nu ne lu wér la kooku daa wax lu amut luñ tere la bu fekkee kenn loru na ca buñ ca lor ak buñ ci lorut am na bàkkaar ba noppi moom ci wax lu amut am na bàkkaar ci wax lu amut ba noppi bu ca kenn loroo nag mu dolliwaat mu mu am bàkkaar bu ci dollikuwaat muy lor gi mu euh, sabab loru nit moo tax wàllu xibaar ab jullit da cee war di teey ab jullit da cee war di teey lii mu wax ne bu xamee ne wérut mu nettali ko moom ci boppam daa wax lu amut yonent bi moo ko waxoon moo ne woon ku nettali xibaar buñ gis ne wérut wala bum xam ne wérut nettali ni ñu ko nettali daa wuute ñii dañ ko nettali na xibaar bum xam ne wérut fii ñu nettali ko ne xibaar buñ gis ne wérut ki ko nettali nee na bokk na ci soskat yi bokk na ci ñu wax li amut ñu wax lu amut liñ dénkaane te mu wax ne moom yonente bi it ne nit wërta gaaw di lu mu jot rek nettaliwaat ko nit warul di def lu mu jot rek nettaliwaat loolu ku koy def rek mën naa tàbbi ci bàkkaar kafa bil mari isman an yuhaddisa bi kulli kafa bil mari kadiban kadiban an yuhaddisa bi kulli ma samia liñ dénkub jullit mooy ab xibaar bu ci amut lu ko leer bu mu ko nettali bu mu ko jàllalewaat wala bu koy nettali it boog na daw res ndax ne nee nañ nee nañ nee nañ daal nee na ñooy wax nañ daal xaw ma wér naam wérut boobaa moom setal na boppam waaye dégg loo amut lu la leer ba noppi di ko nettalee nett saxal ko loolu jullit waru koy def waru koy def bala moo nett len nett li saxal da cay am lu ko wóor da koy wóor ne lu wér la bu defut noonu rek la muy def lañ ko tere la bu fekkee nag nee na ah lii daal wax nañ ko waaye wax dëgg yàlla xaw ma nag nu mu demee boobaa moom tooñu kenn ki ko dégg moo war a gisul boppam mba xam wér na wala wérut euh, kon sëñ Cheikh di jottali xibaar bu wérut ku ko def te xam ko xam ne wérut moom waxkatu lu amut la ku wax ku ko defit ngir ñàkk a ba tey def nañ luñ ko tere xamut ne wérut waaye nag gëstuwut gëstuwut da ko jot rek daal di jàllale te dam ko jàllalee jàllale ku koy saxal la kooku it lañ def na luñ ko tere def na luñ ko tere waaye ginnaaw xamutoon ne wérut nag duñu wax ne moom day wax daa wax lu amut waaye daal def na luñ ko tere te mën na ko yóbbee ci wax lu amut bu yàggee mën na ko yóbbee ci lu wax lu amut suñu Seex kii moom day laaj mu ne sëgg gi nga xam ne ñenn ñi yëngutu ci wàllu tàggat yaram ñu ngi koy def lu mel ne kii karaate ak yu demee noonu mu ne lan mooy àttab sëgg googu ci lislaam sëgg yooyu day am na ci sëgg yooyu war ma la war ma la nuyoo la daal xeet nuyoo moo xam ñi tàggat yaram a koy def moo xam sax def defewuñ ko ci ci buntub tàggat yaram waaye xeet nuyoo la rek ak xeetu war ma dara newu ci xeetu nuyoo la ak xeetu warmaal dara nekku ci euh, aada la ñoo xam noonu lañuy ñuy nuyooyee noonu la ñuy warmaale noonu la ñuy warmaalante yenn tàggat yaram yi itam fa mu seeni aada daa demee woon noonu ba tax bu tasaaroo ci àddina si itam àddina sépp ku koy def ku nekk itam di tënku ci aada yooye rek mooy xeetu nuyoo la rek yépp xeetu nuyoo la daal xeetu nuyoo la ak xeetu warmaal rek la loolu dara nekk ko ci Cheikh. Euh, kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci góor goo xam ne euh, boppam bi jaawagut muy jëfandikoo ay jumtukaay yoo xam ne day tax kawar gi ñuul ak lan mooy àtteeb jëfandikoo produit yi nga xam ne ni day nooyal kawar ñuulal ñuulal ki ki àggut ki àggut fuñ baaxoo bi jaawe ki àggut fuñ baaxoo bi jaawe sañ naa ñuulal am na ñooñ àgguñ fiñ baaxoo bi jaawe ba noppi bi jaaw ñooñ nañu ñuulal seen bi jaaw boobu sañ nañ ko xeetu wéri di lay xaw a nuru buñ ko ñuulal day mel dañuy faju rek day mel na ko wéri di faju ndax àgguñ fuñ baaxoo bi jaawe ñooñ buñ bi jaawoon sañ nañoo ñuulal buñ bi jaawat itam bëgg seen seen kawar gën a ñuul rek mën nañoo ñuulal dara newu ci waaye liñ tere mooy ku àgg fuñ baaxoo bi jaawee di ñuulal di nëbbu bi jaawam loolu lañ tere loolu moom day nuru soppi bindu bi yàlla ndax yàlla ni binde nit day am foofu li ci ëpp bu ci nit àggee day bi jaaw ndax bi li koy waral rek mooy day am yu ne ci yu ne ci yu ne ci der bi loo xam ne mooy def ci kawar gi ñuulaay boobu yuy génn la lu mel ne yuy sereti ñooy def ñuulaay boobu yooyu nag yàggaay mën naa tax ba duñu amati doole di ko ñuulal loolu ay at la waaye leneen tam mën naa tax leneen lu jaxasoo moom mën naa tax mu dem ba du amati doole yi di ñuulal kawar gi loola mooy ku kuy bi jaaw te àggul fuñ baaxoo bi jaawe moo tax kooku sëñ naa ñuulal kawaram waaye ki àgg fuñ ko baaxoo defee nag bu ko defee tey mel na day soppi bindub yàlla ndax ni ko yàlla bindee bu tolloo fii daa baaxoo bi jaaw kon bu ko soppee day mel na kuy soppi bindub yàlla day mel na kuy nax nit ñi itam day mel na kuy nax nit ñi moo tax yonent bi ku mel noonu ku noonu daana ko tere muy ñuulal daana ko wax nag ne bu bëggee soppi kawaram mën na koo def beneen couleur boo xam ne ku ko gis xam na ne lii moom du kawaram moo ko ci def bu dee ñuulal nag koo gis mën naa jàpp ne sa kawar la mu doon naxaate waaye lu mel ne fuddan moo tax lañ ko daan def ku fuddan kawaram ku gis xam na ne lii moom du kawaram kawaram bindoo wut nii kon ay naxaate amu ca waaye ku ko ñuulal nag day mel ne naxaate da cay am ndax ku ko gis mën naa jàpp ne nii la ko a mel te dëgg-dëgg melut noonu moom moo def moo tax kon ki àggul fuñ baaxoo bi jaawe moom sëñ naa ñuulal waaye ku àgg fuñ baaxoo bi jaawee nag sañut a ñuulal bu dee nooyal kawar nag nooyal ko moom dara nekku ci sañees na ko ci jamono yépp jam fu nit mën di tollu sañ naa nooyal kawaram yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan diw kawaram da daan diw te naa noyal kawar xëy na du so diw wala diw lañ koy defee man naa am waaye daal nit sañ na euh, rawatina am na ñooñ buñ ci deful dara mën naa dem bay damm seen kawar mën naa dem bay damm boobaa def ci luy teemu damm dara néew ci bu ca loolu amul sax noyal kawar daal dara nekku ci bu dee jëmmi noyal gi rek rek rek moo ko moom la ci bëgg booba dara nekku ci suñu seex kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb góor goo xam ne dafa dénkaane ne bu fi bàyyi ko nañ ko déjale ci alalam euh, lañ fay lekk ak lañ fay naan ak lañ fay soxla nañ ko jël ci alalam loolu day gënut kenn war koo def hmm. ndax loolu du du farat dara du ci farat nit ñi fi des ñoo koy defal seen bopp kon nañ ko def ci seen alal ñoom ñoo koy def lu bëgg a def nañ ko def ci seen alal ndax seen coobaree bopp lañ ko defee kenn santu leen ko euh, dénkaan lu ñuy sàkkoo tuyaaba la dénkaan lu ñuy sàkkoo tuyaaba la kon def defal dénkaan koo xam ne da nga ko jubloo dimbale loolu lañ jublu ci dénkaan yoo xam dañ koo jubloo dañ ko jubloo dimbale wala def ko foofu danga jubloo def sa alal ci yoonu yàlla dénkaane dara ngir ñu def ko ci jumaa wala ñu def ko ci ab jàngu wala ñu def ko fu ñuy faje wala nga dénkaane dara ngir ñu jox ko diw sàngam diw sàngam moo xam da nga da koo jubloo dimbale dénkaan foofu lañ ko war a dugal waaye dénkaane ñu ci ñu ci dëj loolu moom gënut gënut du tey nag ku ko def it ndénkaan la dañ koy wéyal danañ ko wéyal ndax mënuñoo wax ne loolu lu daganut la bu doon lu daganut su ko wéyal bu doon lu la dee su ko wéyal waaye ginnaaw lu dagan la nag dees na ko wéyal waaye nag gënut mu koy def moom nit dal alalam bu ca bëggee def ndénkaan na ko def ci yiñ ko miin a defe yi nga xam ne dimbale nit da caa nekk walla sàkku tuyaaba ci lenn ci alalam da caa nekk waaye da luy dajale nit ñuy togg ak a lekk ak a naan loolu kenn waru cee def ndénkaan bu ko defee nag danañ ko wéyal danañ ko wéyal waaye nag moom ci boppam lañ koy la ñuy wax ne waru def sëñ Cheikh jërëjëf sëriñ Cheikhouna kii moom day laaj mu ne ñaar ñiy sëy muy góor ak jigéen léeg-léeg ñu àgg ci foo xam ne dañu am jafe-jafey am doom waaye médecine dem na ci àgg na ci foo xam ne nii léeg-léeg mën nañoo jël liy bàyyeekoo ci jigéen ji ak liy bàyyeekoo ci góor gi ñu def seeni pexe ngir ëmb mën a am mu ne ndax bu ñu defee loolu bu ëmb sosoo ëmb boobu dañuy jàpp ne kon góor gee ko jur waaw loolu de am na anam yu am na anam yu bari yu ñu ciy def am na ci yu dagan am na ci yu daganut mooy mën nañoo jële ci góor jële ci jigéen boole boole leen ba ëmb bi sosu ba ëmb sosu ñu jël ëmb bi nag delloo ko jigéen ji mooy defal defal dugalaatal ko jigéen ji fi muy ëmbee mu àggale ko loolu am na waaye am na ñoo xam ne dañuy jële ci góor jële ci jigéen jox ko jeneen jigéen mu ëmb ko ëmbal ko jeneen jigéen loolu moom daganut loolu daganut jeneen jigéen jee sequt góor gi dara kon dara góor gi warta dem ci ci biir jigéen joojee waaye bu fekkee nag dañoo jële ci góor jële ci soxnaam boole dugal ci soxnaam loolu li tax ñu koy def mooy dafa am jigéen ñoo xam ne fi ñuy ëmbee jamono yi ab ëmb di sosoo munta sosoo fi ñuy ëmbee ñoom fi ñuy ëmbee ab ëmb mënu faa sosoo ndax benn day tàng tàngoor woo xam ne du ko àttan waaye nag bu demee ba sosu dana fa mën a nekk moo tax foofu dañ dañuy jël ci ñoom ñaar dugal ko ci ay ay ay ay tuyau lañ koy wax ay tu ay tuyau lañ koy def ay béréb yoo xam daal day day day ay weer lay yoo xam ne day day day day day mel ne fii doom di so fi ëmb di sosoo ci biiru nit ba fa sosoo ba noppi nag ñu jël ko nag dugalal ko jigéen ji ndax sosu fa la nanguwut waaye bu sosoo ba noppi moom dana fa mën a nekk bu ko defee mu ëmb ba mucc jot mu mucc loolu dagan na moom bu fekkee ñaar dañuy sëy te jigéen ji lu mel noonu ko dal moom ëmb munta sosoo ci moom waaye nag mën naa mate ci moom kon mën nañoo sos ëmb bi feneen dugalal ko ko mu àggale ko loolu dagan na moom waaye nag jël ci góor jël ci soxnaam jox ko keneen mu ëmb ko loolu ñu ngi koy def tubaab yaa ngi koy def waaye nag daganut daganut euh, xëy na ñi wax ne la ca dagan daal mooy bu doon keneen ki ñu koy jox ba tey soxnas boroom kër bi la looloo ne kon góor gu am ñaari soxna walla lu ko ëpp am na ci soxna sos moom munta ëmb ñu jëlee ci góor gi jëlee ci soxna soose ëmbal ko seneen soxnas góor gi loolu la am ñu wax ne moom mën naa dagan waaye bu dee ab jàmbur moom munta dagan kon am na ci lu ma dagan sëñ Cheikh am na ci lu munta dagan la ca dagan nag doom ji ci juddoo góor gi moo ko jur ndax ci moom lañ jële ci moom lañ jële jële ci soxnaam yaar yooyu ñu am fuñ ko jaarale ab diir door ko euh, delloo ci soxna si boobaa ñoom ñaar ñooy ay juróom waaye nag jox ko dugal ko ci beneen jàmbur nag loolu moom luñ man la ñu ngi koy def waaye du lu dagan ci waxi borom xam-xam yi euh, la ca ñenn daganal mooy bu doon ak keneen ki ñu koy defal day soxna si góor gi itam. Mhm. Euh, kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteb sharia ci ñu jël azaka jox ko jigéen joo xam ne ni mi ngi ci sëy azaka wala azakay muurum koor mhm. asaka jox asaka jigéen ju nekk ci sëy loolu lay lay laaj ndax sañaas na ko li tax xëy nañu laaj ko mooy ne jigéen boroom këram moo ko war a yor moo ko war a yor ba tax na ak ñàkkam daanaka daanaka du ak ñàkk hmm. ndax ñàkk mooy koo xam ne ay ajo aajo mënut a faju mënu koo faj moom nag ay aajoom waru koo faj moom keneen a ko war a faj ba na ak ñàkkam day mel ne amut amut maanaa lool xëy na loolu tax laaj bi ñëw dañ naan bu fekkee moom borom këram mi ngi fi mi ngi fi bu jigéen ji jigéen mën naa am am na jigéen ñuy am am alal ak fu ñu ko mën di amee dañ koy doon wala ñu may leen ko wala ñu liggéey ba am ko ñooñu am nañ waaye am na ñu amul loola kon ñàkk nañ waaye bu ñàkkee it am boroom kër nag boroom kër bi nekk fi nekk ak ñoom boobaa dañ naan ñoom ñàkkuñ kon bu ñàkk day am boroom kër baay ñàkk kon kuy joxe asaka bëgg koo jox jigéen ji na xool boroom kër bi bu dee borom kër bi ku am la kon waru koo jox ndax dana ko fajali aajoom warta jox jigéen ji ndax borom kër dana ko fajali aajoom bu dee borom kër bi ku ñàkk la nag na ko jox borom kër bi borom kër bi moom la koy jox borom kër bi di ci di ci fajaale aajooy soxna si bu fekkee mi ngi fi dañ naan bu fi nekkul nag borom kër bi nekku fi te jigéen ji ñàkk na mooy boroom kër bi daal mënu koo taxaw ndax nekku fi bu fi nekkoon nga jox ko ko mu ko ci taxaw waaye ginnaaw nekku fi te loxoom jotut ginnaawam ba mu koy mën a taxaw kon sañe sañees nag koo jox moom jigéen ji ndax moom ñëpp a am am na yitte am nay aajo te mënu koo faj amul ku ko ku ko mën a fajal itam ku mu war ku mu war ku koy mën a fajal nekku fi kon danañ ko mën a jox asaka ñu koy mën a joxe góor wala sax bu fi borom këram nekkoon sax man ko sax man koo fajal aajoom itam waaye jigéen ji la tax ñu koy jox asaka mooy ay bor ay bor mooy ay bor da koo da ko sonal boobu sañ nañ ko cee jox donte borom këram mu ngi fi te am na itam ndax loola du faratay borom kër bi du farataam mu koy fayal ay borom du farata ci moom mu koy fayal ay borom te ku amee bor nag bokk na ci ñi yeyoo asaka ngir loola ngir bor ya du ngir ak ñàkk waaye ngir bor ya kon jigéen mënees na ko jox asaka ngir ay bor yu mu amee yoo xam ne ku ko amee yeyoo nañ jox ko asaka sañ nañ ko caa jox duñu xool borom këram ndax man naag mënut ndax mi ngi fekk nekkul waaye bu dee ngir ak ñàkk la nag moom dañuy xool ndax borom këram mi ngi fii ak ndax am na wala amut wala mi ngi fekk nekkul bu fi bu fi nekkee te amut dañ koy jox borom kër bi kon mu taxawu ko ci bu amee nag. moo xam mi ngi fi moo xam newu fi moom bu amee dañ koy bàyyeeg boroom këram bi am mu di ko fajal ay aajoom waaye dee su ko jox asaka ngir ak ñàkk euh, sëñ Cheikh. Mm-hmm. jërëjëf sëriñ naa kii moom day laaj mu ne ndax góor sañ naa séq ak soxnaam te mu xam ne bu noppee sax bu dee sangu janaa ba am na ay cëram yoo xam du ko mën a sangale. góor gu xam ne bu bëggee sangu am na ci cëram lu mu dul mën a raxas ndax kon dana saña def li waral sangu ci moom dana ko sañ dana ko sañ ndax lu ne bu ci nit àggee am na yoon wuñ koy jaarale dañu koy jaarale lam man lañ koy defloo lam mënut ñu defloo ko leneen wala ñu defloo ko lam man mooy sangu kum warit du caageenu sangu rek lay mën a def mu baax waaye bu fekkee munta sangu ngir amut lum sangoo amul ndox mum sangoo day tiim day tiim ni nga xamee ne bu waroon a jàpp te amul ndox mum jàppe day tiim bu waree sangu it te munta sangu ndax ak wéradi ba tey day tiim nit ki nga xamee ne eh, ku waroon a jàpp bu munta jàpp ngir ak wéradi day tiim kon duñ wax ne rek ginnaaw xam na ne du mën a sangu wala du mën a sang cëram yépp rek kon sañuta def luy waral sangu ci moom sañ na koo def bu ko defee ba sangu war nag ñu door a xool nag la muy def mën naa sangu na sangu munta sangu na def la ko munta sangu di def bu fekkee yenn cër yi la munta raxas li ñuy tuddee Euh, masaa bu fekkee dañ koo bànd dafa am bànd mu masaa ci kaw xamees na ko bu fekkee jéggi na dayo ba daanaka bu ko kiiwut mu bàyyi sang cangaay li ci boppam dem tiim mu bàyyi cangaay li tiim kon daal liñ bëgg a wax rek mooy xam ne doo mën a sangu lu tax ñu ne kon sañoo def luy a sangu ci yow ndax ku munta sangu it am na leneen luñ ko tegal luñ ko tëralal lu mën a def euh, sëñ Cheikh